حمدي وشكري لمن كل ميزان لو ردا دون سوء جنين حمدي وشكري لمن mbokki jullit yi mbokki taalib yi gannaaw ñu leen nuyoo ziar leen jiital ci biir nuyoo bi ak ziar bi serigne kuba serigne Mountakha Mbacké Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lol Mbacké te and ak wer di nuyu di siyaare serigne Mamor Mbacké moom serigne Massamba mbokk yi xam ngeen ne ginnaaw bi serigne Moustapha sering serigne Massamba tanne de ji borom bi subhanahu wa taala talibi yi keur sering serigne Massamba yeesal seen jeppal ak seen gayante ci serigne Mamor Mbacké moom serigne Massamba ci bir lol nak di njabot gi serigne Mamor serigne Massamba dajalewaat na leen ci këram gi ci Touba mbokk yi daal di ànd ak nag mbooleem jabootu ma Massamba ak leen nag ci taalib yi dem ci sëriñ Touba Serigne Mountakha Mbacké Bachir daal yeesal seenu jaayante fedd seenu njëbbal ci seen digganteeg sëriñ Touba mbokk yi naka jekk diggante kër Serigne Touba ak kër Serigne Massamba ànd mi benn rek la mas a doon tax na Serigne Mamour Mbacké mi fi nekkal Serigne Massamba daal di yeesal ak njëbbalam ak ko jaayanteem waaye yeesal njëbbaluk mboolem suñu bokk sëriñ Masamba ci ki fi nekkal sëriñ Touba te moo di sëriñ Mountakha mbokk yi loolu moo waral bile jotaay damay bàyyi ak sëriñ Abdou Bakhe Dia ñu topp leen ñu xool jotaay bi ak kàddu yi sëriñ bi di jokkalanteeg kilifa ki nga xam ne moo di sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké Bassir mbokk yi nu wéy ànd ak sëriñ Abdou Bakhe Dia ci jotaay bi sëriñ Mamour Mbacké amal ci kër sëriñ Touba sëriñ Mountakha dafal kadaru الذين معا يا من لخدمته ما يسوى صلى عليك بتسليم بلا قدر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ Muntaxa sëriñ maam Mor Mbacke moom ma Massamba moo ànd ak njabootu Cheikh Massamba gépp tàmbalee ko ci sëriñ Modou May mi nga xam ne moo doon xalifa bu njëkku ma Massamba te sëñ seek Kaala di doomam mi ngi ci njataay bi teg ca sëriñ Mahmoudan moom itam Cheikh mbake mi wax ak yéen mi ngi ci jataay bi ak njaboot gi teg ca sëriñ Modou Faté Xari moom itam sëriñ fàllu mi nga xam ne mooy xalifa bi mi ngi ànd ay njabootam yëpp teew nañu tabaarakallaahu teg ca sëriñ saalihu mbàkke sëriñ saalihu moom itam ay njabootam niwa nañ fi teew nañ fi ñoom ñëpp teg ca sëriñ abdul baaxi moom itam sëriñ cheikh sëñ ahmadu mi nga xam ne mooy xalifa bi mi ngi ne ànd ak ñoom teg ca sëriñ abdou salaam mbàkke mom itam seigne Abdou baxé ak seigne Modou mbacké ak njabot gi ñi ngi ni and nañu ak mom tek ca seigne mustapha Massamba mbacké momit ki top ci tawam dafa genn waye cheikhuna mi fi nek ak ñom Abdou ak Abdou Rassakh ngi ni ci jotaay bi mu tek ca seigne Maamoor mi nga xam mo ñew tay bëgg xëy na jokk ko ci yees ndax mësta màggat ak jokkoom ci sëriñ Touba te mu def la ngay sëriñ Touba te nangu te bëgg nga nangul ko ko moomit it yàlla dogal muy koo xam ne teg ca sëriñ Abdou Xabiir mi nga xam ne mooy caatu Seex Masamba moom it ay njabootam a ngi nii ci jataay bi sëriñ Maamoor moomu nag moo ñëw tey di yeesal yeeslu ci yow yeeslu waale nun ñëpp ci jël sëriñ Tuuba muy sunu lépp ñu def ko ñu def la ko ngay sëriñ Tuuba bi nga xamee ne yàlla def na ko nga ngay sëriñ Tuuba lañ ko nangu nun ñëpp nangu ko moom mii mu nangu ko ànd ak nun ñëw di la ko nangul bu baax a baax di déglu sa ndigal di wattandiku say tere nun ñëpp nekk ci gannaawam noonu mooy doxin wi nga xam ne moom la nu fekkoon kër gi di ko dox ca mag ña ba léegi dara mosu cee soppiku ah moom nag am na xaas ju rëy ci sëriñ ma sàmba ndax yàlla dafa dogal ni mu ko niroo noonu la ko niroo jëf noonu la ko niroo pas-pas noonu la ko niroo itam yitte ak yëg ñu ngi koy ñaanal yàlla te sàkku ci yow nga ñaanal ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi yéene koo lëggeel seex ma sàmba waaye yéene ko lë mottalil magam yi demoon barki démb rek mu mën koo def ba mu mat sëkk yow itam nga ñaanal ko ba li nga xam ne yéene na ko mu mën koo def ndax bari na yu nekk ci kanamam yoo xam ne la mu fas yéene mooy jëf ko na nga xam ne na la ko bëggee muy projet boo xam ne mooy projet Daaru Karim di jumaa ju mag ju fa nekk yoo xam ne dafa rëy lool te jumaa joojee mu fas yéene mu àgg ak jàmm mu bëgg nga ñaan ci bu baax a baax ba mu jàppandi ndax dañ koo defoon ci xër ba mu àgg foo xam ne fii doonu jumaa ju ndaw ju mag a mag la fa tabarakallahu waaye nag am nañu yaakaar ne ak pas-pas ak yitte ci nga xam ne am na ko ci teewit nga am ko ci mën na gaaw lool te àgg ba nga xam ne nam ko bëggee na ko amee noonu kon mi ngi ñaan nga jàppale ko ca dëkk ba itam ndax dëkk bi li ci ciy jàppee mooy dëkk bu ñuy sanc la dëgg la amoon na fi waaye nag dañoo boole yépp muy benn ñu toxalaat sanc ba nag foofu ca kaw mu bëgg nga jàpp ci bu baax ba yafa war a am yépp am fa ndox am fa yoon am fa courant am fa lépp am fa lu ci ne am na lu fa am tuuti waaye dafa manqué loolu mu mu ngi koy sàkku ci yow bu baax a baax mi ngi sàkku itam nga ñaanal njabootam gi ànd ak moom ñu gën a am ah, ñu gën a taq ci gannaawam te dégg ay ndigalam te ànd nekk benn te bëggante te toppante di déglu say ndigal mu dinu ko jox nu di ko jëfe kooku loolu moom nun ñëpp fas nañu yéene nekk foofu te duñ fi jóge ba mu mukk incha allahu feeg ñi ngi dund kon loolu mooy li nga xam ne moom la sëriñ Maamoor bëggoon loolu nag tey dafay def yoon wi moo baaxoo noonu yeeslu waaye moom mësula màggat mësula umbante ak yow waxtu wu ne mi ngi ñëw ci yow di la gis di gisee ak yow waaye nag ñëw ànd ak njaboot gi yeeslu wax nag ñu gën a nekk sa gannaaw bokk taxawaay bokk bokku bëgg-bëgg bokk doxin loolu mooy li tax mu ànd ak njaboot gépp bàyyiwul kenn ci kër gi te njaboot gen noonu lañ ko defee ci moom bi nga xamee ne sëriñ Moustapha jóge na fi kenn ku nekk jiite kër ga dafa ànd ak njaboot ga mu ànd ak gépp ñëw lu ci moom def ko muy Cheikh Massamba ba mu ñëpp dajee moom it mu ñëw nag lu ci yow ngay sëriñ Touba loolu mooy doxin wi nga xam ne moom lañ fekkoon yoon wi di ko dox moom la fekkoon yoon wi di ko dox mu doxe noonu te du ca soppi dara loo digle lu ne danañ ko jafe incha allahu lu ñuy tere nag duñ ca jaar mukk ci àdduna incha allahu loolu mooy doxiinu kër Seex Masàmba noonu la ànde woon ak sëriñ Touba loolu la toppee woon ci moom noonu la ko sëriñ Touba bëgge woon noonu la ko sëriñ Touba doon liggéeyloo ci xasida yi te barki dem rek nga def ci kiimaan gu rëy muy bis boo xam ne bisu xasida boo xam ne kenn xàmmewu ko màggal gu màgge te lépp di ay ñaan lépp di ay istixfaar lépp di ay tasbihaat lépp di ay jaamu yàlla lépp di sàkku njégal ñu jàng ko fi lu baree baree bari nga xam ne wóor na ne loolu lu ñu bëgg a jañ ci balaa mën na koo jañ waaye lu ñu bëgg a ñor di ci njëriñ mën na koo andi kon sëriñ bi sëñ Maamoor ne mi ngi lay gërëm bu baax di la sant bu baax di la ñaanal yàlla sa fan gudd lool ndax sa taxawaay ak sa pas-pas ak sa yéene am na ku xam na ko bu wér a wér fa tabaarakallaahu te taalib te ñun ñii topp ci gannaawam ñëpp xam nañ ko kon sëñ bi sa fan gudd rek mooy li am solo yàlla na ko yàlla def ci darajay lislaam loolu mooy kàddu yu mu wax woon naa la ko jottali moom nag eh, eh, mi ngi nii asalaamaaleykum sama xel kapp dafa fees sama xol dell foofu rek loolu laa leen ko mën a loolu rek nag moom rek laa leen di xoole loolee itam ci gën leen a gën a sant ci ci taxawaay bii ngeen def ak jotaay bii ci kanam gën a suñu Mamour suñu Mamour moom dama ko xamee rek bëgg ko ngir yàlla bi ma ko xamee dëgg dëgg dëgg la la tax ma doon ko bëgg lépp ma fekk ko ci moom loolu moom mooy sama diggante ak moom sama diggante sëñ Massamba mooy noonu mën ko waaw kon seen diggante sa diggante sëñ Massamba nag sëriñ bi mm-hmm. kon loolu tànk yooyu moo leen fi loolu na xam ne incha allahu gën a fas yéene gën a yeesal suñu jaayante ak Serigne Touba di leen ko seeral fas ko ànd ak di fàttali sama laxasaay fas yéene ko ànd ak sax dàkk ci jaamu yàlla liggéey Serigne Touba loolu fekk waaw waaw bi taas lii min bi daa kadarin